الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان فها نحن نوجه يوم عاشوراء يوم أنجى الله فيه موسى من الغرق إنما هو خبر أهل الكتاب ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم وحي إليه يصدقهم وفي ذلك من العدل حتى مع الأعداء ما لا يخفى بقيتي الله تبارك وتعالى إنا بنو تامبالي سنو تربرام نوغي نيانال سنو يننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi dëgmal bisu ara bisu ashura dana nekk ci ñenn ñi bisu dimaas ñenn ñi mu nekk ci ñoom bisu lundi comme ni ñu wuute woon ci tabaski bi loolooy tax wuutawaat day amaat rek bisu tamxarit xam ngeen bisu asura muy bisu tamxarit lan mooy sabab bi lan mooy histoire bi ci lislaam mooy yonent yàlla Musaa la yàlla muccaloon ci noonam boobu tudd Firawn yàlla muccal na ñi gëmoon yàlla ñi àndoon ak Muusa daa di labal noonam bu rëy boobu di Firawn ci biir géej gi yonent alayhi salaatu wasalaam yàlla dogal mu gàddaaye Médine Makka ñëw Médine mu fekk yahuud yi di ko woor mu laaj leen ne leen koor gi ngeen di woor lan mooy sabab yahud yi ne ko dañuy sant yàlla lan la leen defal ba ngeen koy sant ñu ne ko dañoo àndoon ak sunu yonent bu tudd Muusa alayhi salaam am benn noonam bu rëy bu tudd Firawna toppoon ko bëgg ñoo faagaagal ñu nag moom gi ñu ñëw ba ci géej gi amuñu fu ñu jëm moo ngi sunu kanam géej gaa ngi sunu ginnaaw amuñu fenn fu ñu jëm bu ñu avancé dugg ci géej gi lap bu ñu reculer da dajeeg sunu noon boobu mu rey nu nee na boobu la yonent yàlla Musaa jël yatam bi daal di koy dóor ci géej gi géej gi daal di xar yàlla ne waa banu Israil ak Moussa ne nu jàll bi nu jàllee ba jeex Moussa sax yàkkamti woon na bëgg a jàpp ci géej gi ñaari cat yi ne da koy tëj balaa waa ji di leen dab yàlla ne ko bàyyil géej gi sa yoon nekku ci bàyyil géej gi dama sew saa bi mu wanee ginnaaw li ñuy wax ci bandi bu am doole bu beew ba gis boppam du deltu ginnaaw kanam rek firawna daal di sóobu ak ay soldaaram parce que doomu aadama yi jamono ju nekk pouvoir la ñuy jaay kattan doole bis bu nekk da ngay gis borom doole di wane dooleem firawna bu mu sóobee ak ay soldaaram yàlla mu ne fa nabasnaahu fil yammi wa huwa mulim yàlla mu ne ma jàpp ko nëq ko ci ndox mi muy ku ñu yedd waaye yàlla wax ci alquran ne inna fi zalika la ibra loolu day kéemtaan la li ulil albaab ñeel borom xel yi inna fi zalika la tazkira yàlla nee na loolu fàttali la ak waar la képp ku ma bañ a topp bisa ngi ñëw dinaa xotti géej gi wala mu xotti suuf si ñu dugal la ci suuf si képp la nit ñi ñibbi dara du xew te bi ko yàlla waxee ba léegi mu ngi koy def mbokk yi ñu ne yonent yàlla muhammad ñun looloo tax ñuy woor bis bii ndax sant sunu borom lim nu defal ndeket loo ciy jànge bu la yàlla defalee xéewal dafa la teraanga yàlla may la wér lan moo la war mooy nga sant yàlla waaye xam ngeen ne baat boobu di sant te muy jaamu yàlla bu rëy tey moom ñun waa Sénégal lu nu dindi suñu dund la sant yàlla ñuxuma kenn ko waaye néew na nga fekk nit ku yàlla defal lépp nga bett ko rek mu jàpp lal si jaada nga ne ko sa waay looy waaje def mu ne dama bëgg a julli ñaari rakka sant sama borom ak néew loo koy gis tey kay li am mooy liggéeyu ndeyam la xamoon na ne dina am li ndax yaayam a ko liggéey ci kër gi kon yaayam la du yàlla kii xamoon na ne dina ab dina am li ndax sëñ diw moo ko ñaanal kon sëñ bi la du yàlla kii xamoon na ne dina am li parce que dafa def sacrifice ci dundam parce que daf ko daf ko ñefe kon léegi dund gi la daf ko ñefe du yàlla léegi yàlla lan lay def wuuteeg alquran ne woon wa amma bi niamati rabbika imalu ala daawuda shukran wa qalilum min ibadiya shakur yàlla moo ko wax nee na néew na ci jaam yi ñu may sant man yàlla bal sax yonent bi daf ko wax ci hadisul qudsi yàlla ne yonent bi nee na yàlla ne ana wal ins wal jinn fi nabain azim man yàlla ëllëg yowmal qiyaam man ak nit ñi ak jinne yi foog ñu taxaw ci benn tribunal ñu àtte ñu ndeke yàlla mer na mer goo xam ne dana poñe nit ëllëg taxawloo ko moo ginne pour ñu àtte leen lan la nit ak ginne def yàlla moo koy nettali de ci làmmiñu yonent bi yàlla nee na axluqu wa yubadu xayri man yàlla maa bind ñu bàyyi ma jaamu keneen man yàlla maa bind man ni nañ ma jaamu ñu bàyyi ma man yàlla dem jaamu keneen loolu leer na léeg-léeg nga dégg ku takk rajoom guddi yor ay tabala wala ay sabar naan diw mooy borom jaam yi di tëgg di wax tur di wax koo koy borom jaam yi léeg-léeg nga dégg ko ku seedeel yàlla fi ci biir jumaa ji dégg na loolu ci noppam waaw wala diw mooy yàlla wala ñu bàyyi li ñu war a defal yàlla defal ko mbindeef moomu wala yàlla tere kenn du bàyyi ni tere ñëpp bàyyi wala nga gis nit màggal nit moroomam lu raw ni ñu war a màggale yàlla da ngay dugg tribunal ñëpp toog ñu jékki-jékki ay minutes ñu ne jóg leen taxaw ñëpp jóg ñu ne mbaxane yi ne dañ ñu takk noir fumé tekki leen bu fi benn portable sonné ñëpp respecté ko te bu ñu duggee ci jàkk ji portable yi di takk ñu takk noir fumé yi mbaxane yi ci bopp yi kenn du respecté néegu yàlla te tribunal dañuy respecté léegi ixwaani fillah yonent bi ne yàlla bind ñu jaamu keneen luy ñaareel bi mu ne wa arzuqu wa yuskaru siwaaya man yàlla maa wërsëgal ñu sant keneen wërsëg bi yàllaa ko moom moo koy dàq fu sori yónni ko ci yow mu ñëw nga am ci lu ne gañ au lieu nga delloo yàlla njukkal nga nga sant keneen man kay bi ma demee ci diw mu ñaan wala bi ma defalee diw wala bi ma nangam nga sant keneen bàyyi yàlla tabaraka wa taala moo tax ëllëg foog yàlla woola tribunal bi ñu waxee loolu ne ñun dañuy woor ngir sant yàlla yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ne leen man maa leen gën a yey ci Muusa maa leen gën a yey ci Muusa ci juróom-ñetti mbir al ula annana saddaqna bihi wa amanna bihi walam naraahu bi xilaafi man kazzabahu min qawmi lu tax jullit ñi ñoo gën a yey ci Muusa borom xam-xam yi daal di koy firi juróom-ñetti point bi ci njëkk mooy ñun jullit ñi dëggal nañ Muusa alayhi salaam ni ñu dëggale alquran dëggale ko yonent bi ndax këru jullit yépp foo dugg fekk Muusa dëggal nañ ko moom yonent la yàlla ko yónni waaye lenn ci ahlul kitaab dañoo weddi Muusa ñun dëggal nañ ko gisuñu ko amul benn jullit bu gis Moussa alayhi salaam ci jullit ñi yàlla yónni woon yonent yàlla Muhammad ci ñoom gisuñu ko waaye dëggal nañ ko wuuteeg ña ko weddi ci ay nitam ñaareel annahu daa li tawxidi illahi kama daa ilayhi nabiyuna bal laa yaxtalifu anhu shay'an fi hadihi aljiha Moussa lan lay indi woon mooy kennal yàlla tawxid loolu la yonent yàlla Muhammad indi maanaam diine bi yonent yàlla Muhammad indi woon moom la Moussa indi mooy nañu kennal yàlla wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an i'budu llah wajtanibu taaxut wa ma min umma illa xala fiha nazir amul benn xeet lu dul ab yonent dem na fa pour bàyyeeloo leen bokkaale nit ñi lànk rek ne dañuy dee ci bokkaale ak néew kuy jaamu yàlla tey te du bokkaale te bokkaale ku ko def doo dugg aljanna bu yeboo nga gëm bu yeboo nga bañ a gëm billahi wallahi boo dee ci bokkaale safara nga jëm wa man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna yàlla nee na ku ma bokkaale araamal naa ci yow aljanna boo waroon dem àjjana gome naa sa tur safara nga jëm direct parce que da nga maa utal moroom gis ngeen bokkaale li sax ngeen xam ne dafa garaaw amal soxna rek amal soxna nga dem jumaa ñëwaat fekk mu toggal la ginaar nga ñëw fekk benn waay tëdd sa kawlal ñu taajal ko ginaar gi nga ni sa soxna kii nag mu ne la kii moo aye tey daal di yem foofu même bu doon bu doon day kaf sax nga yor bal pistolet da nga ko koy dóor waxuma la ak nag kaful léegi nag yow nga bëgg a dendale yàlla ak keneen moo tax yàlla du la baal mukk abadan loolu rek doy na ci misaal bu doon sa doom la sax nga yónni ko mu dem ci bitig bi keneen daal di koy woo yónni ko nga ñëw mu ne yow fo nga ne yow ma la yónni ba léegi foo nekkoon man def dama ñëw rek pas diw ne nag ma naa bàyyi li nga ma yónni moom mu yónni ma allahu akbar doom jooju boo ko pesee lexu ndeyjoor bi day ñëwaat càmmoñ xoolal ñaar yi rek nga def leen lii yàlla mi la bind nga bàyyi ko jaamu keneen yàlla neen du ma la baal mu yow safara nga jëm moo tax diine bi Moussa indi woon mooy diine tawxid moo ko yonente bi alayhi salatu wasalaam wuute wuñu ñetteel annana nashhad annahu ballaga diin allah wa adda al haq ar risala ñoo ngi seede ñun jullit ñi ne Moussa li ko yàlla yónni woon lépp la leeral bàyyi wu ci tarfatal ayin lépp jàngale na parce que alxuraan moom ko wax soo jàngee alxuraan yonent bi gën a sonn ci yonent yi ci alxuraan mooy Moussa moom moo ëpp lu yàlla tudd turam ci yonent yi ci alxuraan li yàlla tudd Moussa ci alxuraan sax turam tudd ko yonent yàlla Muhammad ndax Moussa problème yi mu amoon yi mu daj li mu dajeeg banu Israil waaye li mu dajeeg Firawna moo tax mu gën a sonn ci yonent yi Baqara ba suuratul aala yàlla nga tudd yonent yàlla Moussa baqara ba aala ñeenteel annana laa nuusihi ñun de duñ lor Moussa duñ ko wax la ko banu Israil waxoon ndax waa banu Israil ñoo saaga Moussa xas ko wax wax ju bon ba yàlla di ko wetti ci alquran karim ya ayuha alladina amanu la takunu kalladina aadaw Moussa fa barra'ahu allah mimma qalu yéen ñi gëm yàlla bu leen mel ne banu Israil yéen jullit ñi bu leen mel ne banu Israil bu leen lor yonent bi ndax banu Israil dañoo loroon Moussa ne dafa xuuxaan ixwaan yi juróomeel annana nashhad annahu law kaana hayyan zamana nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma wasi'ahu illa ittibaa annabi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi seede ne moom yonent yàlla Moussa li maqaamam di rëy yëpp li muy am daraja yëpp li muy màgg yëpp li muy bokk ci ulul azmi mina rusuli yëpp su fekkee woon jamono yonent taalibe yonent bi lay nekk sallallahu alayhi wa sallam loolu yonent bi moo ko wax yonent bi moo gis Omar ibnul Xattaab yor ay fii ci bible di ko liir yonent bi kanam gi daal di changé mu ñëw ne Omar jox ma këyit yi nga yor Omar jox ko mu xool muy bible mu ne ko maa ngi giñ ci màggaayu yàlla téere bi ak kiñ ko wàccee kiñ ko wàccee tey bu doon dund suuf si du yaatu lu dul mu nekk sama ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi du moroomu kenn léegi nag yonent bi su Moussa nekkee taalibe yonent bi kon keneen nag tax ñu jël keneen kon di ko teg ci kaw yonent yàlla Muhammad te kat diine l'islam bi ko am dara rek Muhammad la sédd te loolu ko dem ci jàkkaam ji xam ko dugg ci rawdam bi fi mu ne maa bayna bayti wa minbari rawdatan min riyadil janna wallahi ku egg foofu xam ne muhammad mooy muhammad aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafur alhamdulillahi wahdahu ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله النقطة السادسة أننا نؤمن بما جاء به عليه السلام في باب العقيدة ولو لم نقرأه أو نطلع عليه ñun julli ñi day ànd nañoo ak yonent yàlla Moussa alayhi salaam ci li ko yàlla yónni woon ci pas pas Moussa la mu fasoon loolu la julli di fas mooy kennal yàlla yàlla kenn la moom yàlla tabaraka wa taala amul moroom pas pas boobu doonte ne ñun jànguñu ko ci tawraat yàlla nettali nañu ko ci alquran loolu moo tax ñun ak Moussa ñoo bokk pas pas looloo tax yonent bi ne leen maa leen gën a yey ci Moussa juróom-ñaareel أننا نشهد أن كل من كان من أمته ولم يتبع النبي أن موسى عليه السلام منه بريء ñun jullit ñi ñoo ngi seede ne yonent yàlla Moussa ñi mu fi bàyyi woon di ay nitam ñi ci fekke woon jamono yonent lànk bañ a topp yonent bi Moussa dafa denc ci ñoom ma ne Moussa ñi mu fi bàyyi woon ñuy dund ba yonent yàlla Muhammad fekk leen fi ñu lànk bañ a topp yonent yàlla Muhammad Moussa bu dekkee day deñ ci ñoom danaan man ak yéen bokk ñu parce que da ngeen a weddi Muhammad man su ma fekkee woon Muhammad jamonoom dama koy gëm kon yéen di ngeen ko fekkee comme gëmu leen ko man ak yéen bokkuñu dara juróom-ñetteel ann allazi jaa bihi sallallahu alayhi wa sallam wallazi jaa bihi Moussa alayhi salaam yaxruju min mishkatin wahid kama qala najaasi najaasi xam ngeen buur la woon ca Éthiopie ndeysaan dama dajeeg benn waay ci aéroport Jidda ku ñuul la ñu bëri lañ ñu ñëw nuyu ma fi ma taxaw wéeru ñu ne ma foo dëkk man leen Sénégal ñu ne ma man leen fan ngeen dëkk ñu ne ma Éthiopie ma ni leen Haile Selassie ñu ne ma laa laa taqul naa haza arrajulu lkafir qul naa jadduna najaasi may leen Haïlé Sélassié moo nekkoon seen njiit ñu ne ma bu mu wax kooku waaye wax ñu sunu maam Najjaasi ndax mooy jullit ñun moom lañ bokkal pas-pas gis nga ki nga bokkal pas-pas Najjaasi jullit ñi dañoo jógee Màkka ñoo nëbbatu ci moom est-ce que yonent bi moo leen ne dem leen péccu bi am na fa buur boo xam ne du tooñ du nangu ko tooñ jullit ñi daal di ñëw nëbbatu Éthiopie yéeféer yi Makka Quraysh jël wenn waay bu tutu Amr ne ko yow xaritu buur bi nga demal nañ la jox or ak alal boo demee nga neexal ko buur bi mu jox la jullit ñépp ñu indi leen Makka rey leen Amr daal di gàdd waxande yi or yeeg xaalis yi jël Éthiopie mu yegg si buur bi daal di woote benn réunion am bu ñëw jullit ñi ñëw buur bi ñëw toog buur bi ne amr lan moo leen métti ci ñii ñu ne ñii dañoo ñëw di tàqale diiney maam yi dañ fa fekk sunuy maam ak sunuy baay topp dara ñoom ñu ñëw weddi loolu ah loolu gis nga dellu dañ koy wax tey mais ndeke démb la woon léeg-léeg nga dégg ñu ne ñii dañoo weddi li fi mag ñi indi yéen mag ñi lan lañ firi bi mag ñi lislaam lañ yoroon di alquran ak sunna lañ doon dund kon suñu waxee wax jooju dafa mel ne mag ñi leneen lan nekkoon mag ñi ci lan lan nekkoon xeex ak tubaab bi samp alquran ak sunna ñun ñoo dévié est-ce que alaaji Malik ak say Ahmad Bamba daan nañ jox jigéen loxo est-ce que seen jamono bu jigéen daana def bopp neen Cheikh Ahmad Bamba lan la wax ci jigéen ji def bopp neen lan tanaali diinan hatta tastari jismuka bi taxammulin yaa Zeynab sëriñ bi nee na ku dul muuru du jullit Cheikh Ahmad Bamba ma ko wax de man waxuma ko nee na ku dul muuru du jullit waaw waaw ñun kay ñun ñoo jàdd buñ leen tuumaal ñoom ñoom jàll Alxuraan ak sunna la nekk xamuñu leneen ku ko weddi jàngal masaalikul jinaan jàngal masaalik jàngal tasawudu sixaar jàngal tasawudu ziwaan jàngal lii ma wax ku ko weddi dama nga jàng xalaatu sahabu alaaji Maalik li nga xam ne ñoom ci dëgg lañ nekkoon lii ñu nekkee jël ñu caaxaan yi ñu nekkee def yaramu neen bàyyi xale yu jigéen yi ñuy paccal di dangal góor ñi di cris karas seen tubéy bënn seen i nopp di fees stade yi bàyyi jàkk yi xam ngeen ne loolu alaaji Malik fi nan wax suñ nan wax dëgg najaasi mbokk yi daane amr lan moo leen métti ci ñii nit ñi dañoo tàqale diine yi mag ñi ak lan ñii dañoo yëkkati jigéen te jigéen xam ngeen ne amul benn njëriñ seen diine dafa yëkkati jigéen ak lan ñoom nee nañu Isa jaamu yàlla la rek buur bi mer jóg taxaw daal di wàcc pliant bi mu toogoon ak dox ne ko nga ni lan ñu luñ wax ci Isa eh yéen seen diine dafa am lu wax ci Isa Jaafar Jaafaru Sadiq Jaafar ibnu Abi Talib daal di puus ñaari jéego moo doon Amérique bi ne ko waaw waaw suñu diine kay am na lu mu wax ci ci Isa lan la diine bi wax mu ne ko Isa sunu diine dafa ne jaamu yàlla la yonentab yàlla la ruux la bu bàyyeekoo ci yàlla bu mu sol Mariam mu ne ko ndax seen alquran dafa wax dara ci ci mbirum Mariam mu ne waaw ne wax mu dégg mu ne waskur fi kitaabi Mariam id intabasat min ahliha makanan sharqiya mu jàppal buur bi aaye di ko jàng ba jàng buur bi commencé jooy amr daal di xool buur bi daan ne bu waa ji di daaneel aaya bi rek ñu rey ñëpp ndax buur bi mer na bay jooy bi jaafar jeexale aaya yi ba egg ci salaamun alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ubasu hayya yàlla mu ne zalika isa bnu maryam qawlul xaq allazi fihi yamtaru lii de mooy waxu isa waxu dëgg ci gaa yi di sikki sàkk di ci déng-déng wax jaa ngi nii buur bi daal di jël benn yat bi mu yoroon kaan bi daal di koy rëdd daane maa ngi giñ ci màggaayu buur bi sa wax ji ak wax ji Isa indi woon ak Muusa ñoo bokk benn génn waay bu ñu génn benn wax kese la maa ngi seede ne tey yonent bi bi yàlla yónni woon ci yéen ab yonent la dëgg la yàllaa ko yónni moo tax najaasi mooy sahaaba bi gëm yonent bi génn àdduna yonent bi yëgu ko ñu suul ko après woo yonent bi ne ko waa ji génn àdduna yonent bi daal di génne sahaaba yëpp ci àll bi daal di jublu penku daal di jullee najaas yi salaatul xaayib kon mbokk yi dëgg gi mooy lii mooy lan alquran la mu fi fekk mu jóge ci Muusa ak Isa weddi wu ci lenn ci benn benn pas pas la génne ci benn balluwaay la génne mbokk yi ci yàlla ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala nasalullah an yanfaana biha wa an yatawallana bi xifzihi wa an yansura diinahu wa kitaabahu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله